bonsoir les fidèles téléspectateurs de la VA TV la télévision de l'espoir Nous ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam am mbégte ak contentement dalalaat leen ci émission comment vivre avec man nak man la seen dom MJ mi len dan faral di gis ci seen émission tiroir secret tay nak ma ñew ak yeen ci benen facette ñu dalalon ben ndaanaan ben grand ñu mo xamantene mu ngi nekk président de l'association jokul production de la presqu'île du Cap-Vert ñom nak ñuy faral di organiser li ñuy wax festival de la culture lébu ren mu nekk seen quatrième édition ñu war ko euh, amal le 24 décembre inshallah ñu bayiko mu ñu tek ami téléspectateur VA TV grand nuit

dañu gis ni aada cosaanu cosaani lébu daanaka kenn waxatul ay waxam. Mhm. nit ñi dañuy am tendance rek nekk ci estaat ay lébu piir lañu. Mhm. ndaw rabbin ana lébu yi. Mhm. te loolu taxul ñuy wax aada ak cosaanu lébu. raison pour laquelle ñu ne kon dinañ créer association pour indiwaat. li nga xam ne mooy aada ak cosaani lébu pour mag mi fàttaliwu fàtte woon mu fàttali ko xale bi xamul woon mu xamal ko. donc kon loolu moo tax yéen ngeen organiser festival de la culture lébu. waaw bokk na si li tax ñu organiser festival bi. loolu mooy bii bi tax ngeen organiser ko parce que euh, dañ naan ñëpp fàtte woon euh, dama naan jeunes yi mujjee ñëw. xamatuñu seeni tradition. Mhm. xama parce que mag yi fi nekkoon war ñu ko fàttali dama naan mag yooyu ñoo fi nekkatul. Mhm. gis nga li ci aada ak cosaanu hmm li ci graw ci histoire lébu mooy binduñu ko. Mhm. dañ ko waxante. d'accord kenn ku nek dañ lay wax dañ lay léegi rek. Mhm. nga netali mais binduñu woon. bind léegi la commencé am. d'accord donc euh, lébu yu aussi tamit yalla def. euh or mu amuñu woon boobu organisation ba mën di fessel saa su ne li nga xam moy mooy aada ak cosaanu lébu. la. am loo xam ne tamit dafa màggee suñu biir. Mhm. ndax tamit lébu yi ay jullit lañu. Mhm. am si ñoo xam ne dañu dem ba ci biir jullit ci am ci lu ñu bokk am ci lu ñu tënku. Mhm. lenn ci aada cosaan bi dañ koy xaw am bët buñ koy xoolee ba duñ ko nangoo def. loolu bokk na si li tax des fois aada ak cosaan boobu di laaxatu beneen bi mooy que am na ñoo xam ni ñoom fekk nañ fi mag ñi. biñ fi fekkee mag ñi euh, waroon na jël flambeau bi continuer ko. mais comme ay intellectuel lañ hein, te souvent euh, yenn intellectuel yi dañuy xaw a sori tuuti. seen aada ak seen cosaan. effectivement parce que foofu bëgg naa fi ñëw mais bëggoon naa xam idée bi idée euh, festival bi fan la jógee. waaw idée festival mi ngi jógee ci. Euh, yàlla na ko yàlla yërëm tax yofal suuf si kaw El Hadj Jabel Coomar Grand Jaraaf. ndeysaan. ndaxte moom dama daan wéet ak moom ci biir bureau nuy waxtaan. ni bi ñuy waxtaan ma ne ko man de bëgg naa di organiser loo xam ni day wane aada ak cosaani mun ma loolu day baax na waaye bu ñu yem ci fecc meek tëgg mi kese. effectivement. <laughs> ma ne ko fecc meek tëgg mi sax day xaw a da jamono da koy xaw a bëgg raw. léegi il faut ñu indiwaat ko defaat ko ci contexte jamono. Mhm. maanaam nañ ko def mais nañu wane lu tax ñu koy def. lu waxtane lu tax lu koy def lolu mo wara ci bir festival ñu ci def panel bu ba defee panel ba nopi ci guddigi ñu ñew nak woné li ñu waxtane woné mhm. panel bi ñu ñew woné ko effectivement parce que fofu tamit bëgg na fa dugg mais donc yow ci sa biir wax yaa ngi wax yow ak El Hadj Jibril Jabel yena yena mom nga togalon wax kan ni da nga bëgg créer lolu kon yow si ñi ko créer si nga bok waaw euh, festival bi suñu suñu suñu bu doon nit la dañ naan suñu doom la. d'accord suñu doom la. Mhm. ndaxte bi ma amee idée bi dama dem seeti ji ñi nga xamante ni ñoo bokkoon association bi. Mhm. ma woo leen ñu ñëw ma ni leen dama bëgg mu waxtaanee. Mhm. pour def benn festival de la culture la bu ñu ne ma mën na nekk ma leen mën na nekk. ñu ma nan lay nekkee man leen nii lañ koy defee nii lañ koy defee nii lañ koy defee. ñu ne Matar pour une première fois ñu bëgg ko def en trois jours. Mhm. avec une budget boo xamante ni nii. Mhm. ñun yorul ñaar dërëm. Mhm. man leen waaw dama am benn xarit. boo xam ne bi ma waxtaanee El Hadj Jabel ba noppi moom laa dem seeti muy Thierno Lecompte Seck. dinaa ñëw si budget boobu euh, léegi yow ñan ngay est-ce que am nga ñoo xamante ne ñoom ñoo lay gunge si festival boobu ñoo xam ne ñoom nga siy àndal ñu la siy jàppale et jàppale ci ban wàll. Euh, ñi nga xamante ne à chaque fois bu programme bi amee yow wax ñooñu yéen a koy bokk defandoo démarche yi et tout. waaw. Hmm. am na si sama jigéen bu baax ñi xam nga man yàlla dafa ma nattoo nag ay jigéen laa. Hmm. góor bari lew ma ko. Hmm. donc samay jigéen ñoo ma ciy jàppale ànd ceeg man. ku mel ni euh, Michel Ndiaye ku mel ni Maguette Mbaye. ku mel ni euh, Maam Sini. ak Rokhaya Ndiaye. Mayta Ndiaye. macha allah am nga mhm. ñooñu mhm. suñu jigéen la ñoo xam ne ñoom la ñu àndal def festival fu mu fu suñu tànk mu teg dama si am sax benn anecdote lu ñuy def première édition bi. Mhm. ndax première édition bi moom période ba mu ngi fekkoon ñu koy def au mois d' avril. Euh, ñu war ko def le premier le trois le quatre avril. Mayta Ndiaye war a célébrer anniversaire am le vingt huit mars. ñu ñëw këram toog si anniversaire di waxtaan mënuma. Est-ce que le festival de Nam, le festival de Nam, Urbi, le festival de Nam, mhm. même si le premier, le 2, le 3, le 4, le 5, mhm. le 2 messieurs. festival bi lan si kaso bi. parce que moom budget bee taxoon ñuy ah, mhm. loolu yëpp day wane esprit d'équipe bi ngeen am dëgg la effectivement léegi euh, le 24 décembre incha allah lan mooy programme bi toute la journée naka lay demee festival bi. waaw le 24 décembre incha allahu rabi buñ ci yàlla yóbboo. Mhm. bu mu xëyee suba. à de 9 dañuy def. cérémonie officielle bi. Mhm. té def festival bi baxna def def def baxna né mais tamit kilifa yi baxna mhm. ndax kilifa rek ko damay def doyul mais day ñew top, né ko li da def. Mhm. ni Nous koy fait le la bëgg diko jaaral. def at Nous def at ko bëgg a ndax duñu bëgg le bu ndax ba fii nu toog di wax tey jii leadership amul ci biir communauté lébu lébu gi dafa mel ni ferug lawbe gu dagg ci ay karo. naan tasaat. gis nga ferug lawbe gu dagg ci ay karo. lébu <laughs> gi mu toll noonu la mel dañ ko pàcc pàccee. ok xarabuñu mhm. lañ d'accord. Mhm. ñëpp waaye nag war na loo mën a am genn kàddu ndax lu jox mu gëdd bi nu moom. loolu waral ñu créé cérémonie officielle boobu mhm. di def cérémonie officielle bu ñu jógee ci cérémonie officielle ba à partir de 15 heures mhm. bi mhm. panel bi ci la waxtaanee li nga xamante ni moo la thème festival muy aada ak ci tolluwaayu jamono les valeurs traditionnelles lébu face à la mondialisation dina benn sous-thème tam bu ñu cay waxtaanee muy euh, lébu yi bi ñuy ñëw la sanc Tëngéej naka la toogee ba sanc Tëngéej ba Tëngéej toll ni mu mm-hmm. mm-hmm. loolu la ñuy waxtaan effectivement parce que loolu am na solo trop. Uh-huh. léegi ñun tamit nag bëggoon nañ xam uh, ñan ba xam na am na ñu nekk seen ginnaaw di leen financer et di leen jàppale. waaw bu dee dee ku ne suñu ginnaaw di ñu financer. Mm-hmm. du kenn. lu sama jigen yu bax ñi ma andal ñi may fital mhm. may waxu tak sama dal di dem ak ñew fi may waxe yow ni mhm. fi ñuy waxe ni mhm. autorité tengé amu kenn ku ci duggal fukki dërëmam mais est ce que yeen dem ngeen ci ñom pour laaj le pour ñaan leen wala pour expliquer leen nim démé pour ñu man leen jappalé et tout waaw xam nga ñi fi nekk d'abord comme le président du conseil départemental. le mhm. maire de la ville et les maires de commune. Mhm. dafa a une voie administrative pour voir pour waxtu ak ñoom. effectivement bind demande une audience. Mhm. audience. ñoom euh, Omar Oumar Cissé son secrétaire général mon secrétaire général euh, municipal, moom recevoir. après nous boole noog madame

kon jàll na. Mhm. ndax amul ko ko ci yëgul. ñoom ñu yëg ndax biñ leen bindee demande d'audience bu ñu paree mënoon nañ si bañ a sori. Mhm. mais dañ leen def ay parrain dugal leen si suñu spot publicitaire def ay carte parenage yobbul leen ko. d'accord ñoom ñëpp tooguñu seet kenn mais ku ci nekk yóbbu nañ la sa carton parrainage. Mhm. parce que ay kilifa lañ sañu noo def. te ñoom yëguñu. Mhm. sañuloo def te waxuñu leen. dëgg la. moo tax même bu ñu joxul ñaar dërëm dinañ leen jox seen wàccuwaay. Mhm. ñun lan war a def daanu ko def ñoom ba ñu toogul fa ñu war a toog def lañu war a def. effectivement li nga wax yëpp deug la mbokk yi ñu leen di fatali ne ñom dañuy faral di organiser li ñuy wax festival de la culture lébu fii lay amee ci Rufisque lieu bi fan la té la sax coxo quartier coxo euh, c'est le 24 décembre à partir de quelle heure à partir de 9 h à partir de 9h a ko déggandoo euh, bëggon nañ xam tamit yan difficulté ngeen di faral di jàkkoonte ces affaires yi waaw difficulté mo bu ñak hmm ndax dafa melni lebu mo moo difficulté ñoo ànd waaw ah, loolu dëgg la ndax tay ji fi mu toll ni no ngi rent pour boucler suñu budget mm-hmm. ndaxte am nañ ay xarit nak ay doomi nday yo xam buguñ sax ko tuddu seen tour ñoo lay bo ba nga ñew ñu lamb seen poste jox la ni la defal te yàlla tax te yalla rek tax mm-hmm. ndax suñu libu bi ni mu mel la mm-hmm. dañuy top ci lu ay détail te bayyi li am njariñ la preuve dañu defar banderole. Hmm. pour festival takk ko fii si juuti bi ci suba gi ci ngoon gi ñu dagg ko. Hmm. donc difficulté ñàkk ndax incompréhension. mais mais est-ce que est-ce tàggoo ngeen balaa ngeen di def euh, banderole boobu. Euh, tàggoo ñi war a yëg ñëpp yëg nañ. Hmm. kilifa yi war a yëg yëpp yëg nañ. y compris le préfet sous donte nag. lettre d'information rek la ñu bind. Hmm. ndax dëkk bi nekk ñuy tënkee lébu ñoo ko moom dëkkam lébu la lébu ko sànc ba tey jii ñoo ko seeni loxo la nekk. Hmm. du ma moom sama alal toog sama alal bëgg def dara sama alal di tàggoo damay yëgle mais du ma mais xam nga dëkk bi tamit dafa am ay loi ndax panneau publicitaire yi rek balaa nga koy taf di nga def ay démarches ba pare donc xam nga c'est normal nga ñëw rek jël sa benn kii taf si mbedd mi te kenn yëgul kenn xamul nu mu demee. waaw ce que communication bi aussi desul. waaw nangu naa mhm. te mhm. ci katak. Mhm. ragalul fi mu jëm. nëbbatul. nga laajte ko. ci ko dagg ak lu mu xalaat ba dagg ko sii daf ko dagg parce que tëm tënkuwuñu ci yoon. Mhm. moom jalgati na yoon moom mi ko dagg. Mhm. ndax dafa yàq bagaasu jàmbur ab jàmbur la yàqal. Mhm. mënoon nañ ko porter mais ñoom bu fekkee dañ ko jox autorisation nag. même buñ ko joxee autorisation moom ak ki ko jox autorisation. dañu yàq alalu jàmbur. ndax tamit yow mi ko ci yoon bi da ngay def yoon doo ñëw rek yàq alal. da ngay avertir. na soo avertiree ba noppi nga yëglu soo yëgloo kenn faalew la bu la neexee nag yoon mën na wax ne dalal si kaw loolu. d'accord mais li ñu takk tey ci suba. Mhm. nga gont ci ngoon dagg gont ci ngoon dagg ko. Mhm. dafa mel ni dama naan lu ñu taxawoon di xaar la pour mu am. pour mu am ñu def ko. mais nag malheureusement dañ fi fekk koo xamante ne nii mag ñi ñëwoon waajal. Mhm. dara feesoo suñu bët. lu mu xas ba dëmmal. Mhm. dara mais <laughs> foofu laa lay daggee ba xam ndax côté sécurité bi parce que genre festival yooyu nit fu nekk lay jugee lu waay yëg te ku ne xam na ne lébu moom dafa am gëdd fii ci Tëngéej mhm. ak euh, ci fukki penc ñaari macha allah lu ñu organiser rek day fees mhm. macha allah léegi ba xam côté sécurité bi ku fa ñëw di nga nekk ci sécurité ba keroog baa ngay ñibbi sa kër. ndax loolu dox ngeen si. ma dina nek si jamm ak salaam ba nga tagu tàggoo hmm. ñibbi sa kër ndax dafa am mhm. mhm. mhm. lu lébu hmm ba noo daje danoo daje nun suñu hmm ab tak der baaxoo du nekk suñu biir man ma suñu ko nonu nun duñ ko def waye doxilu jamono tax na il faut mu fexé nan daan dundé démb ñu nek ci contexte bi actuel à l'heure actuelle pour mëna and ak jamono mais xam nga mag ñi bu ñëkkoon ñoom ni seen façon de vivre ak ñun nekkul benn jeunesse bii nii euh, parce que yaakaar naa loolu boo koy organiser war nga oowi ji waa Croix-Rouge wala nga nga ut ay baraaloo ñu jàppale la ba nga xam ne kaaraange gi dina mat ba ku fa nekk nekk si jàmm. non bu soobee yàlla kaaraange dem ndax takk der yooyu ma lay wax. Mhm. dinañ nekk suñu biir mais duñ sol ay tenue. d'accord. am na ñoo xam ne dañuy def sécurité sur la d'une manière privée. ok je comprends am na ci tamit ñu ñu ñu ciy liggéeyal. Mhm. donc dinañ teg seen cordon de sécurité. Mhm. à partir de sept heures et demie. Mhm. dinañ ko lever aux environs de une heure trente du matin ndax manifestation ñu ngi séntu mu jeex une heure. une heure du matin. une heure du matin. d' accord ndax veillée culturelle bi day dem ba une heure du matin incha allah. j' espère que tamit ut ngeen autorisation ba nga xamante ne bu commencé kenn du ko yàq kenn du ko tas et tout ça. non non non tout ça nag. yàq moom du ci am soxla yàlla ndax. Euh, bind nañ ñun war a bind wax na moom ñun war a waxal. donc mbokk yi yéen ñi nga xamante ne yéen a bëggoon dem euh, seetaani ji festival de la culture lébu boobu war a am fële ca coxo euh, man ngeen a wu bu baax a baax ndax nee nañ jël nañ seen matuwaay yépp euh, mais président bu fekkente ne am na leen loo xamante ne bëggoon nga ñu laaj la ko te laajuñu la ko. ñu laaj la ko te laajuñu ko. Mhm. xanaa di wax ni. nun lébu yi xoolaat suñu bopp. Mm-hmm. il est temps. Mm-hmm. yàlla def na muy dëkku teraanga mag ñi liggéey lañ dem. Mm-hmm. bàyyi fi teraanga seen ginnaaw. ndax wóor na ñëpp ne léegi Tëngéej am na pétrole. kooku leer na léegi ñu leer na Tëngéej am na pétrole. ñi ñuy jiite ku ci amul gis-gis dañ ñuy gën a tardeel si dolli si liñ tardé woon il faut ñoom ñëpp ibbi seeni bët xool surtout équipe municipalité yi nga xam équipe municipale yi nga xam ne ñoo fi nekk bees. Mhm. ndax dafa am benn discours bu ñu doon prôné benn discours bu ñu porté woon combat bu ñu porté woon population bi adhéré si. muy ban di suur ñoom dañu ñu woon te ngeej dara doxul dara baaxul ñu te ngeej dafa wara changer te ngeej dafa wara avancer. effectivement ndax ville historique la foy dugg boy génné dang kay romb boy dugg faaw nga jaar fi. population yi gis seen bopp ci discours boobu adhéré seen combat fal leen ñoom ñëpp boo xoolee ville de Rufisque quatre maire de commune ñoo fi nekk trois de moins ñaar ñi daanu nañ kenn ki moo fi desaat ba léegi fil bi ci fi nekkoon daanu na keneen moo ñëwaat kon majorité bi am tënge dañu prôné pour la rupture par rapport au discours bi ñu doon dégg ci ñële donc à l'heure actuelle mbir mi war na changer effectivement seen vision mm-hmm. seen vision seen orientation war na tax waa Tëngéej bañ a réccu li tax ñu teg leen fi ndax dañu sonn ci Tëngéej maire boo xam ne day ñëw am benn mandat dem ndax soo amee benn mandat dem maire bi ñëwaat. Mm-hmm. day ñëwaat di xoolaat di tegaat donc war nañ dépasser loolu. dëgg la effectivement ñu ngi ñuy xamal nii li ñu dese woon ci ay minutes léegi mu jeex euh, kon dañ lay bàyyi nga wax sa mot de la fin. sama mot de la fin mooy. ah message boo xam ne boo amee message booy lancer aussi. waaw message bi may lancer ak mot la mooy gërëm. Mhm. sant waa association Jokkul production. Mhm. ay xale lañ ñi ci ëpp di ay jigéen. Mhm. damay nekk ak ñoom bàyyi yu guddi mais kenn si ñoom du wane lu ñàkk fayda. seeni way jiw ku ne sa Matar Ndoye rek ñun la pare nañ ci topp ñu si wax si àddina fi mu toll te nag ñu xam ni lenn kese ñu jox a jóg. revaloriser la culture lébu. Mhm. revalorisation boobu nuy wax inévitablement il faut mu toog autour d'une table mënuloon niroo ñun ñëpp. Mhm. mais mën na noonu nekk benn mën na noonu genn kàddu bu nu nekkee benn am genn kàddu lan bëgg danañ ko am. incha allah ndax mbooloo mooy doole te lébu yi seetaan nañ bañu nu ko am. mais seetaan nañ tey jii ba ñuy wax Ndefleng digg Ndakaaru ay association x y ñeneen askan ñu ngi ñëw di profité si ñun def na ay tremplin di yéeg di dem seen yoon waaw léegi ñun du ñu am fulee nag dajaloo nekk benn ànd fu ñooñu àgg mun mën fa àgg wala mën leen a raw. Mm-hmm. mën nañ ko ñu ko mën a defal ñu ñu ko mën a dox ngi fi ñu ko mën a incha allah man gëm naa ko gëm leen ko rek incha allah day dem boo leen ko gëmee rek day dem amoo kenn koy nuyu et tout xanaa sama jabar <laughs> sama jabar lay nuyu di ko wax ni ko daal maa ngi koy jéggalu war encore une fois ndax des damay guddee lool sax mhm, mu xam liggéey njaboot gi ma yàlla may mhm. ak sama njabootu jokul production ñoom daal lay gërëm di leen sant mhm. di wax ni encore une fois VA aussi bu fi amul woon dañ koy wuti ji j'ai l'habitude de la dire à Boul mhm. ne que VA TV su fi amul woon PDG wuti ji mhm. comme am na fi nous allons apporter notre pierre à l'édifice mhm. mooy dañuy dem comme dañu am tendance di ñefe ci wàllu événementiel lu ñu def bu ñu ko yëkkatee andi ne leen yéen waa VA ñëw leen bokk liggéey incha allahu rabbi di ñaan yàlla VA dem ba nekk première télé en Afrique amin amin yàlla mën na ko ndax télé yi ka doon. Mhm. j'ai l'habitude de ay malaaka liggéeyuñu fa. Mhm. ay golo liggéeyuñu fa ay nit a fay liggéey. yor ay xalaat di ko def. Mhm. ña fay liggéey gënuñu noo muus. ëpp ñu mu fit ëpp ñu mu jom. est-ce sax gënuñu leen muus.

di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal ma leen di wax ne robb yi wala tay baas yi saasu eh, jongamawee rek nduura waali mbergaan la sama tëyër may nuyu sàll ngaari lamtooro buur géde sama tukkuleur aare laasin bi eh, sama jëkkër ji nga xam ne moo ma dooleel moo ma jàppale waaye duma fàtte ma ndiiri njaloog mbiiri faabooli sama yaay ji nga xamante ne ba mu toogee ba tey jugul macha allah maa ngi koy nuyu di ko jaajëfal bu baax a baax di leen wax ni lay demee à chaque fois ci télé bu mag bi VA TV la chaîne de l'espoir allez merci beaucoup prenez soin de vous